Yeah, for the young man. Jiggy right, Yeah. Hey, shout to the young man, mix him rap the woman at us. look at the lama, what we fix if you jab, you're gonna go fast. Malbutak, the summer, you've sorted positive, Ninyano has. lu ma tàkkal la sa yëf bu sottee négatif ne bal bu jaas mën a xoos ci fóori la fekk baax ñàng di nga ko na la joos nga xam ne ma rek a tax level bi gën a diis foo nga miis ni gën mi di ba yokkee ko kenn bi dos fekki tiis ma aje ko bari te kenn du ko jox loo mës a ger lay teg loo mës a xam lay def ci iit yi ngay teg effort king lay nekk kalca la sing day xaat ci biir bi day sek ëskay lay get ma ak kasa fu ma may lakk sa dakk sa ci riba ci bëggee génn may jëf yéen ñëpp ci kenn gën mu xiin di ko du senn mooy li ma rab amuloo ko fenn lu tar ci ñenn laaj ma dégg am waa ci rap ba yegg taxi rap du lu béy du paste usëp man xiif du regg ah. pare naa pour cat la wala ni fey nga doo aksi naa ngir jat la daaj la nga xuus fóori bañkat la fii ku dul paasi doo fi ay ca uus ci baada tuus may ñuus poppu bi tëj fi seeni kuus di nga jot ci firnde bu la wan sama this gun yang man ni mutegele Bunyi bole boko mang nyom bunyi tegele Man la badak ci rap rap def eh, eh, eh. man nigga yor dañu koo calquer si ci surne ma dafa ma dafa you break it down by the sniper under never give up back protect the no shit I don't give up fuck in hot I make it right away fuck God, to hey if I you ready my nigga that's not my way you cannot me overcome I'm 40 younger mind man so totally damn shit I ay chart la yan la mix mixé ma rap dama mën a daas yenu carte la ma war ba fixé fi jàpp yàgg naa ko faas bal bu tàkk la sama jëf sotti positif ni ñaanu la say jëf bu sottee ne katif ne bal bu jaar fër bu jaar fir ne bula wan sama dëgëre xam-xam diis ga ña ngi may ni mu dëgëre bu ñu boolee bu ñu man dama def ci rap rap def ci man gul ko umpale eh, firnde baa ngi ni kaay mm, jël firnde baa ngi nii firnde baa ngi ni maa mm, nigga firnde baa ngi nii bàyyi ma in the bag in the Get it! Get away! Get away! Get away! Get away! Get away! Get away!